sëñ Assane gis nañ ne bari na ñoo xam ne dugaloon nañ leen si kaso bi ñoo ngi leen di libeere ban gis-gis nga ci am. waaw loolu dañ ci sant yàlla bu baax ndax ndax li tax ñun ñu ci sant yàlla bu baax ndax ñi jàpp ñëpp dañ leen a tooñ ndax détenu politique lañ ndax xeexal seenum réew moo taxoon ñu daal leen jàpp am ñoo xam ne sax defuñu dara ñu am ñoo xam te defuñu dara ñu fekk leen fi ñu nekk daal leen jàpp kon tey leen bàyyee lu war la. waaye Sénégal dafa dafa am dafa am loo xamante ne dafay war a jeex ndax jàpp nit ci jaay doole jàpp nit ngir xoqtal ko jàpp nit ngir tiital ko wala jàpp nit ngir ay position lool mooy war a jeex mm-hmm. kon dañ koy naqarlu bu baax a baax ci jàpp gi nga xamante ne jàpp gu tegul fenn la parce que dañoo yaakaar ne ñu yor seen i xaar la wala ñu yor seen ay bàyyi ma heure bu la neexe ñu jàpp la heure bu la neexee ñu bàyyi la lool nag moo war a jeex dañ koy ñaawlu di ko naqarlu te di kontaan ci bàyyi gi ñu leen ci bàyyi ndax wax dëgg yàlla ku nekk xam na ne maanaam jàpp nit tëj ko kaso neexul surtout na maanaam mu def ay weer yu baree baree baree bari ñëpp seetaan ñëpp ne tek loolu jaaduwul du dëgg du yoon kon ñu ngi koy naqarlu ci jàpp gi di am mbégte contentement nag ci bàyyi gi ñu leen bàyyi ndax bu ñu leen bàyyi tamit lu war la daal ndax li lay firndeel ne jàpp gi tegul feeñ rek ndax koo xamante ne àtte wuñu la wu ñu la defuñu la dara jàpp ba mu neex ñu xëy bàyyi nañ la loolu tamit war nañ ko xoolaat daal. waaw ku mel ni xalifa sàll nee na libération bi dafa mel ni daal dafa am ay waxtaan ci suuf li mu bëgg a junj daal mooy Ousmane Sonko Macky sàll dañuy waxtaan. waaw xam nga ñoom loolu moom seen xalaat la ak tamit seeni seeni seeni gis waaye Khalifa Sall moo taxawoon ne détenu politique wax ko Macky Sall Macky Sall ne ko détenu politique amu fi kon moom bu demee tey bay wëlbatikuwaat di siisuwaat. kon day mel ne moom lam doon wax bu njëkk nekkul woon lu lu dëggu ci moom parce que Sénégal xeexal ko yombul ndax te jii boo waxee li ëllëg nga wax la le di sensé comme ni kàkkatar loolu moo mën a ñàkk Khalifa Sall moom dañ koy bàyyi askan wi rek parce que askan wi jugé nañ ko xam nañ ban saar la xam nañ tamit ban maanaam facette la parce que man damaa jàpp ne képp ku kontaanul ci kuñ kuñ bàyyi kaso ku ci kontaanul rek yoroo xol yoroo xol yërmande kon moom day wane ne moom yërmande gi gi nga xamante ne maanaam war na ko am ci askan wi war ko am ci détenu yi amu ko kon nag moom Sénégal yi lañ koy bàyyee rek parce que dèjà moom maanaam jugé nañ ko ba noppi parce que xam nañ moom ban saaru nit la. voilà waaw sëñ Assane euh, dañu gis ku mel ni Cheikh Abdou Bara Dolly nee na Sonko semaine bi di ñëw dana génn def na conférence de presse wax na ci lu bëree bëri ban gis-gis nga ci am. waaw ji kooku moom wax dëgg yàlla man. ay ay maanaam wax ci ay waxam sax du ma ko bëgg xam nga litax tax. lu tax parce que ay waxam wérul Cheikh Abdou Bara Dolly moo dàq fenn kuy fenn ci Sénégal xam nga li man depuis ma génn kaso ba tey man ak moom waxuñu loolu lenn rek rek moo ko waral xam nga Cheikh Abdou bi ñu ko jàppee man dama dem seetiko seeti ko kaso. billahi wallahi taalahi barke Cheikh Mamadou Fadal. Cheikh Abdou dafa jooy xattit jooy la def jooy man ak Moustapha Diouf Lambaye ñoo àndoon mu ne ma sëñ Assane xeexal ma sëñ Assane boo ma seetaanee fii dinaa fi yàgg ne ma sama frère nga ne ma ñi mu àndaloon muy waaye Askan Wi ñëpp dañu maa seetaan sëriñ si dañu seetaan kenn waxul ci man ne ma maa ngi fii nekk fekk lu mat téeméeri nit ak ak euh, cent personnes yu topp ñamate dañ ma fi def yu metti yu doy waar ah ci kaso bi ci kaso bi ma ma génn am ci moom xolu biir maa de taxaw man mën naa la wax ne la Cheikh man li ma ko porteel combat porté lu ma ko maanaam combat li ma ko xeexal moom xeexlu ma ko te dégg naa mu ne moom moo ma génne kaso loolu ay fen la Cheikh Abdou kan la mën a génne kaso seet si woon na la xaaral maa ngi ñëw xam nga bi mu ma waxee loolu mu ne ma xeexal ma parce que dañ ma fee bàyyi dañ maa fàtte sëriñ sa dañu maa seetaan ñi ma àndal tamit ci wàllu politique tamit dañ maa seetaan ma porté combat bi jël ci ay risques yu mag a mag nag te risques yi ma ci jël même ñi ma bokkal ci wàllu làng sax dañ ma cay mere woon. parce que maanaam euh, wax ji ma wax ak maanaam tamit jël engagement bi ma jël engagement ci moom ñu baree baree baree bari mere muy kilifa yi muy ci wàllu politique muy ñëpp ma dem ma xamante ne kii ma doon xeexal jëru ko tey man man maa wax ne man ginnaaw yàlla bu génnee kaso man maa tax Cheikh Abdou Bara Dolly bu génnee kaso man maa parce que su mu nekkoon bañ cee wax. mën naa la wax ne ba tey jii mi ngi ci kaso bi kon moom purux la du gërëm ñamu daaw. mbooleem lu ma ko defal defuluma sax moom. gerte bi kon tey. bu mais xanaa da ban jafe-jafe seen diggante. amuñu amuñu amuñu amuñu jafe parce que man li ma waroon sama diggante ak moom ci taxawaay. def naa ko xëy na nag moom moom moo des. parce que dégg naa ko mu ne bi ñu ma jàppee kaso. Euh, dafa am ku ma jox xaalis xoolal boobu tuuma man Assane Mbacké man ku ma xam xam ne man awma lu may ragal awma lu may tiit su ma waree jël engagement ci nit dama koy jël te engagement bi mu jël ci Ousmane Sonko nit mënuma koo sensé kon bu nee nit dañ maa jox xaalis ak yooyu loolu waxi tuumal waxi fenn la parce que moom dem na ba nga xamante ne amatul crédibilité waxam amatul crédibilité ci nit mi parce que te jii man bi ñu ma jàppee kaso li mu njëkk def mooy man tey dañ ma deux mois quinze jours yoo xamante ne nanguwuñ kenn seet si ma Cheikh Abdou Bara Dolly moo fa ñëw daal may seet si te loolu complice état bi la bi mu ñëwee li ma xamal mooy damaa ñëw seet la en tant que frère te it damaa bëgg ñu waxtaan mi ngi toog maa ngi toog directeur euh, prison bi mi ngi toog directeur prison bi waaw mu ne ma ñii nga àndal nekkuñu nit ñu baax ne ma Ousmane Sonko nekkul nit ku baax waroo ànd ak Cheikh Abdou ma wax ne ma waroo ànd ak ma ko Cheikh sama engagement ak nit mayuma la nga ci wax ak lu mën a doon mënuma déere man dafa am porte de sortie boo xam ne damaa bëgg ñu waxtaan ci man ak yow mënuma damaa bëgg nga change position jàppale Amadou Ba ah Cheikh Abdou man ne ko man ma nekk biiru kaso naan maa ngi négocier ak kenn te boobu moom nee na mi ngi bokk ci opposition bi di liggéeyal Macky Sall kon nag am na wax joo xamante ne wax ju bon dëkkul fa mu jëm fa mu jugee la cosaanoo Cheikh Bara li mu wax lépp ay fen la parce que li mu ne maanaam li muy wax ci Cheikh Bara Ndiaye wax ko ci keneen wax ko ci Guy Marius wax ko ci Cheikh Thioro lépp ay fen la. moom nee na Cheikh Ba na moom Cheikh Bara doon jooy. waaye dama jooy yooyu seex doo ko def man laax man maa gis mu jooy xatti dem sëñ Assane xeexal ma bu ñuy wax ragal ak tappet moom la. bi mu ma waxee loolu ne magaay dañu laa seetaan taxuñ la defuñu lii defuñu lii ma ne ko man lii am solo mooy Ousmane Sonko def na conférence presse wax publiquement ne Assane Mbacké nañu ko bàyyi deful dara ma ne ko loolu rek doy na sëkk ma ne ni yaa ngi falu nga sama kaw ñaari yoon may ànd ak yow di la xeexal te ba tey ji mosumaa taxaw ne la lii wala lii lii lu ma dajul ci euh, yéen ak PDS amul man ma waaw loolu moom dëgg la waaye dama bëgg nga génn ci li ñëw jàppale Amadou Ba nangam nangam kon nag am na loo xamante ne dafa mën a ñàkk Cheikh Abdou. maam lan mooy relation ak Sonko. maanaam Cheikh dafa dem ba dafa dafa dafa maanaam Ousmane maanaam bis maanaam bu la xamee te te xam nga ki nga xamante ne da dafa ñëw ci yow am lu soxla ci yow. fen la fen la fen la fen fen fen parce que liste bi nga xamante ne mooy list député yi bi nga xamante ne ñu ngi koy defar mu saaga waa Pire waa Pire ne ko boo jégluwul suñ Moustapha duñ la ci boole. mu dem sarox Ablaye Wade wax ba Ablaye Wade boole ko ci maanaam ab euh, apartem bi ñu defee inter coalition coalition yeewi ak wàllu ci la ko Ablaye Wade soog a soog a ne comme que Touba amu fi kenn te Cheikh Abdou fa nañ ko dugal ci liste bi gars yi lànk mu woo Ablaye Wade ci boppam wax Ousmane Sonko ne dama lay dimbal dama lay ñaan rek nga may ma Touba ma ñu ñu rafet ñu rafet kii sama sama carte sama bulletin ñaa ko fay euh, def sama bulletin muy bu pedes bi bu ko defee ma wax Cheikh Abdou mu jiite liste bi gars yi lànk Ablaye Wade ñaanu Sonko Sonko ne ko yow amoo may ñaan bag may wax rek mu daal di def lii moo dugal Cheikh Abdou ci biir liste bi. mais bu nekkee député ginnaaw yàlla Ousmane Sonko moo tax parce que Cheikh Abdou amul ñaari nit te kenn àndul ak moom. te tey maanaam euh, élection euh, maire yi nga xamante ne ñoo ngi ko doon def Cheikh Abdou Afa Ndaare la jël loolu nag Sénégal yëpp xam <laughs> Afa Ndaare la jël Cheikh Abdou amul ñaari nit kon tey jii wax ji wax naan ay may gaño Touba nañu fi yàlla bàyyi ba élection yi yi di ñëw barke Cheikh Ahmoud Bam ku mu àndal da nga jël naa est-ce que du daw ñëwaat ci Sonko dama ne moom moom aw waayam xas na ba ñaaw ba noppi parce que nit ki dangay ngay mel nenn mu waaye waaye tey mënoo weex tey nga ñuul suba nga weex suba nga ñuul te ku nekk xam na ne moom noonu Ousmane Sonko bi gën a rëy mooy Cheikh Abdou Bara Dolly parce que du waxtu moom lu rafet du waxtu moom lu baax. Mhm. kon nag. Mhm. damay wax sénégalais yi ne leen. Mhm. nañu def ci jëmm jooju attention. te tey jii mu am loo xam ne tamit dama koy waxaat ñun li ñu xam dafa bari Cheikh Abdou sa téléphone yi nga bàyyi tribunal ba. xam nañ lan moo tax ñor koy sele xam nañ tamit lan moo tax nga ko fay bàyyi Cheikh Abdou dañ laa xam biir xam la biti bala ngaa digle cangaay day fekk nga set ba noppi Cheikh Abdou setoo te it nag bul ñu taxa nag wax sab der yàqu na nga bëgg ñoo jël bëgg ñoo jaxaseeg sëriñ Touba yi naan ay kii ñu wax li yow yaa gën a contre sëriñ Touba yi yow li ngay wax ci Serigne Touba yi bu nit déggoon bàyyi la àdduna ak àlaxira kon nag Cheikh man Assane Mbacké de du ma la may dara tey mayutuñ la tamit ngay wax ci Ousmane Sonko lu toll ne tarafatal xay te lépp loo xamante ne bëgg nga ko ci ñu jàkkaarloo ko dinañ dinañ tontu nit nag tey laa lay soog a tontu parce que damaa xam ne fen yi nga nekkee yàq der yi nga yàq ay deri gor loolu laa bëgg nga bàyyi ko ak nu mu gën a gaawee. am na loo xamante ne nag du ma ci eggagun waaye nag bis dina ñëw dinaa ci egg. bu ragal day am yow ya ragal bu jooy day am yow yaa jooy bu liggéeyal état day am yow yay liggéeyal maanaam état xam nañ lépp nag li ñu wax mooy bul ñu tax wax bul ñu tax a wax Cheikh Abdou Bara amoo ñaari nit àndoo kenn kenn toppul sa ginnaaw ngay wër di fen di wax naan ay su ma àndul te kii kii du gaje Touba yow Touba jéppi la Touba bëggatuñ laa sax gis foo jaar ñu ne warkat baa nga ne foo jaar ñu ne naafeq baa nga ne xam nañ la de waaw en même tamit man leer laal tamit pour wax Sénégal yi ne kii maanaam fen lay def ndax nee na bi Sonko di bi Sonko di ñëw Touba nee na boobu noonu ci oto man ak moom mu Sonko nee na Antoine di ma woo xoolal fen yu rëy yooyu ne bi Sonko di ñëw Touba bokkuma woon ak yow ak songo ak Cheikh Thioro yéen a bokkoon oto man Cheikh Tidiane Youm laa bokkaloon oto diirub li Sonko di ñëw lépp Cheikh Tidiane Youm la la bokkaloon oto kon nag fen yooyu arrêté ko fenn yooyu bàyyi ko yaa ngi dégg kon am na loo xamante ne dama lay dama lay wax rek gis man sama décision ci sama sama décision ci politique ak sama engagement ci politique nit kuy dund mën ma koo sensé loo man su may jàppal ni nit gëm-gëm ak conviction ak xel mu dal laa koy defe mais du caagi ne ay defe li defe lii man man bu ma xaalis doon jënd jar naa bu yàgg Cheikh Abdou dama lay wax ne la man ba may proposé ay million booba yow yaa ngi nekk ci Pape Diop nekk ab soqam di nekk ci ay marché di dawaka daanu te it dégg naa la nga ne campagne yi dañ def xaalis bu dul jeex Cheikh Abdou bàyyil fen campagne xaalis boo ci def lu ne sama propre responsabilité man maa yow boole ak ay nit ñu jox xaalis pour ñuy campagne am na benn bis bi ñu demee ba ba jeexal xaalis ba nga xamante ne euh, pour li ñu war a jëlee kaar yi sax amuñu ko saa bu fàttalikul da ngaa ñëw ba ci man nga ma dañoo manqué xaalis man maa la boole ak sama benn xarit mu jox la mu mu jox xaalis ngir ñu mën a jël ay kaar togg ay añ pour maanaam campagne bi kon nag bàyyil foo toog naan ay sama millions yu bari laa ci def di ko ci benn million lépp loo ci def ñu ne ñun ñun ñoo ànd dem li ñu la ci xaalis ñëw ñëw daat ko ci def kon nag bàyyi li ngay wër de wax naan ay cent millions laa ci def si Abdou yoroo dara da ngay wax rek day daan def naa ne ba noppi yaa ngi ne yaa ngi yaa ngi ne ñuy jàpp kaso yaa joxeel maam dépasse seen biir kër man ne mosuma joxeel dépasse mosuma joxeel dépasse sama biir kër kon nag am na loo xamante ne bàyyi ko nag bàyyil sa